مولاي سل لي وسلم دائما ابدا liñ fi wax te ñëpp daje ci dañuy yóbbante kii toog ndax moom ndaw la te moom war naa rendre compte ñu wax ko nag ni ko yàlla na tànkam yi barkeel ki ko fi yónni yàlla na ko yàlla jàppale ñi mu bokkal réew mi it yàlla na fi yàlla dolli sutura ñi mu bokkal réew mi nag dañoo bari ñu mel ne yow parce yi fi ñëw yépp di leen wax ñoom ñépp nag parti opposition parti au pouvoir wax leen ni leen jàmm réew mii nga xam ni ñépp ci la seen xel ne ci jamono ji ñu toll ci seen loxo la ne gannaaw yàlla ngeen dimbali nit ñi ba nu muñ mucc ndax kat lii xew bu ñu ko toppee ku ci bokkul dana ci loru te sunu borom tabaraka wa taala wax ni wattaqu فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولا في ينجن وغني أي دو يمتي بطو برو بكي نيان أندو تي جام سيرنسي وقتي نيانتي loolu moo di li war am waaye ñi nga am ne nag ñoom ñoo féetewoo xëccoo ñooy xottante it baatu mbubb ñu ñaan leen nag ku xotti baatu mbubb yi xotti ko ci façon bu ñu ko mën a ñawaate ñaw bu rafet ne ñu dimbale njaboot gi ngir yàlla def jàmm ci réew mi ne mënul a wax opposition mënul parti au waaye ñoom ñaar ñëpp la wax ñoom li ñuy xëccoo ñoom ñoo koy xëccoo wax ji jit ci ñoom la jóge kon nañu seetaat ni la papa Maxtaar waxoon sànq rek ni yàlla bindul benn jaam boo xam ni autorisé na la nga fab sa lammiñ teg ci sa deru nawle yàlla mayu ko kenn ne bu ngeen demee yow fii muy waxe ak yow yaa ngi koy dégg waaye parti opposition yi ñu ngi koy dégg waxul politique de jàmm lay wax waxul politique dafa ni réew moo fi jekk li fi yàlla def ku ko wedd ngir sa yàlla dal sa kaw te nag weddi sa bopp nag dara jaru ko bi ci def léegi moo di nguur ñun ñii fi toog wutuñu nguur yéen ñii yéenay wut nguur ak nag ñi ngeen ko seqal wut leen te rafetal wutin wa wax yi bane na رفتل نياونا كرسا امول ربير امول سترة امول كرسا امول رغالي الله امول خلاص سبب امول لولا نيخ واخ لولا نيخ دف مني واخ تجنن انت mënul ne li ñuy dégg feneen wax dëgg yàlla dégguñu ko ci Macky sal ku yóbbu nag moom nag taf ko ci moom ne ndax moom ne ci yàlla rek la tafu ne ku mënul sa bopp ba mu jeex ku tafu ci yow tardé te kenn sa bopp ba mu jeex yàlla rek moo mën boppam mu mel na nag suñu bëggee noppalu daal bu ñu déglu kenn waaye nañ leen déglu suñu borom tabaraka wa taala réew ñaar ñoo fi ne ñi bëgg wut te bëgg boole aw ay yéen la ñuy def bouclier yi teg leen ci kanam yéen la seen bopp di toj te du ngeen am ku leen faj de kon nag yéen balaa seen bopp di toj fatu leen seen biir kër ndax ku ci am géej benn bàyyi leen dof dof lu bi bay njàmbat lu bari li te jaar ci yoon ku la kaay ñu dem mbas maa ngi nii ni ko jiitu ma jiitul ma topp ci aywaan jiitul ma topp su ko defee nag ñun loolu muy dimbali ñi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi te kenn ku ne di coow duma intervenir duma intervenir ndax président xaw ma lu mu àttan ak lu mu àttanul te bëgguma wax ak moom ba tas yaakaaram loolu ma politique musuma politique waaye nag su ma bokkee ci réew mi gis réew mi mel nii ñépp di xalaat lii xew ëllëg alwiqaayatu xayrun min al ilaaj xoddi ko bala ngay lakkale li ñuy wax mieux vaut prévenir تجري مولاي سل لي وسلم دائما أبدا